มาถึงวัดที่มีนามวิสัชเจสุวรรณสุภาพบุรุษ subhanahu wa taala di jaamu leen yàlla liñ ci teg mooy topp leen seen i wéy ci sa bokkaale yàlla mu ne saxaaba yi defoon na roy ndax ñu ay royukaay su boobaa dañuy bokk ci ci yaakaar yi ñu ñoo yées donte que suñuy wëyul dañuy ñëpp pour am ñu def seen waxtaan bi ñëw ci kër gi moo tax bu waxoon nag bu yàgg ci surtu anaam yi mu ne ana kan moo gën a mën a tool ci koo xamee ne lu koy dugal suñu borom subhanahu wa taala wét ci aaya suñu borom yi mu ne koo xamee ne ak yoon gan la kooku mu taxe tool nag bi ci gën a rëy mooy tool suñu borom subhanahu wa taala di tool rek di mbënd mbir bi rek bañ a arrière bu yàlla ko jox ñu yàlla ko mun nañu nekk boo xam ne nii bu baax la te gis nga loolu wax yàlla sallallahu alaihi wasallam ñoom ñu bokkoon moo ne man de ngeen maanaam ngay naaka xam ñett la kon ci jëkk sa bi mooy ki ne su waxee rek kooku laa di wax kon dëgg kon ndaw ñi dañuy wax dëgg ak suñuy wéytu nooy seen kanam bu la dara jaral nga wax ñu mën baasi daal di liggéey loolu mooy li nga xam ne moom mooy jëndoo ci si borom subhanahu wa taala daal di mbiram ñaareel bu mbokk yi sàcc ak abal te du jikko ju baax te islam yi ci digle mooy ku sàcc nañ dagg loxo ma ne bu fekkoon ne réew mi charia la woon ku sàcc ñu dagg sa loxo dina bëri ñoo xam ne ci mbedd mi ay borom loxo yu gëtt dañuy daal di nekk ay julli dañuy mel ak baanoo mel ak baanu julli roy ci jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu demee ba sa portable su wàññoon fii ci ji damay wóor na doon dëpp ak wóor sàcc kan kon nga ko xamee koy wax fii nii boobu laa jël métier mu ne businessman la te amul cantine amul fu muy yëngatu ci li muy dox rek mooy doon ne ne mën na laa doon marto loolu moom mooy sàcc te sàcc baax na su bon subhanahu wa taala moom laa ñu tere kon yooyu yëpp ay jikko la yoo xamee ni doomu aadama war na koy moytu doomu aadama ne ne war na koy moytu ñu tollal ci jamono joo xamee ni jot ji mu bon li mu yàq kenn mënatu ko defar mën naa defar de waaye li mu yàq yi bari na rawatina ci tasaare ñaaw ak fësal wu ñaaw weer doomi aadama yi man loolu ci bëgg bon la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam koy di tere dafa fekkoon ne mu ngi taxaw waaye bi ñuy ak wax ju ñaaw dafa daal di joor di ko wax ba saxaaba yi ne yow noppi mu daal di noppi te dafa boole ci bàkkaar yu mag yi te léegi daanaka waxtaan bi rawatina nit ñi yu tasaar ju ñaaw rek te loolu du jikkoy jullit di jikkoy koo xamee ne war na mën daw na ci lislaam wala koo xamee ne bëgg bëgg laa nekk avenir ci réew bu ñu yónnee message diine jàppa ñi dañuy jullee ñi dañuy defaree julli message yooyu tax na kenn du ko tasaare waaye bu ñu kottee xormay doomi aadama wala ñu wane lu ñaaw ci moom message boobu balaa bëccëg bee jeex da ngay gis ne réseaux sociaux yëpp daal dinañ koy reprendre ñun ñooy wëlbatikuwaat di ko seetaan ñun ñii di wax ne ay julli lañu tey bu ñu fi saaga woon kilifa diine wala ñu saaga fi boo xamee ne dafa yore ñoom daal wallaahi balaa bëccëg bee jeex day fekk réseaux sociaux yi yëpp daal di koy tasaare ku xamee ne dafa doyee dina ak jullit bu doyee bi boo xamee ne ni man li muy njëkk mooy jël ko yónnee ko sëriñ sekk di ci yam dafay woo téléphone naan ko xoolal ñu mën a yónnee jiw niñ ko def wala jiw niñ ko waxaat wala jiw ni mu mel jël ko yónneewaat ko sëriñ jaw woo fa téléphone waxaat loolu mooy tasaare bu ñaaw te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tere te li mu koy tere daf koo boole nag ci bàkkaar yu mag yi sa yaram mu koy wax ci sootul xaj yi mu ne fajtanibu rijsa minal awtaani wajtanibu qawla zuuri sootul xaj yi la mooy ay fanweer kon dañu ko mooy tamit ku lool war waay dañu leen ko moytu ci sa bëri na ku jënd crédit def ko ci portable am ku si internet su fekkee ne am na cent mille di lu wér te wóor moo ñu bëri ci balaa ko jëfee jeex fi mu ne nii mu doon ko téeméeri bàkkaar ndax sàmm mooy li nga xam ne moom la daal di jëm aljanna suñu borom subhanahu wa taala daf may waaye safara nag suñu borom daf koy jaay te léegi doomi aadama yi zaman bi ñoom ñooy daw nag jënd ci bi leen di yóbbu safara wal iyaadu billaahi daa wax ne bu fekkee ne ci jàkka ji la dañuy woote ko bi bunt yi nga ñëw toog déglu bu dee conférence yi noonu la waaye ana discothèque bi boo dugg yow yaay fay boo nekk ci biir yaa koy fay dépenser sa énergie ci loo xamee ne suñu borom subhanahu wa taala gërëmu ko da ngay gisaat ci tasaare lu ñaaw ak wax lu ñaaw da ngay dégg ne diw def na nangam wala diw saaga nañ ko wala diw xotti nañ xormaam daf lay jaral nga dem dindi ci connexion pour mën a xool loolu fu tasaare ko suñu bët yii yow man xiyaamat ci wala ñuy jéggi siraat dana wéyoo ak moom waay waay nañu fexe ba keroog yow la xiyaam suñu bët yi di mu yey suñu loxo yi naka noonu suñu tànk yi naka noonu moom la buur bi subhaanahu wa taala di wax naan yow la xiyaamati wax ne man maa jógoon ci kaw lan bi ci boutique bi jëndi connexion ñëw ci kër gi loxo ne man maa mosoon portable bi bët ne maa ko doon mu wóor nopp ne maa doon déglu ba xam li may tasaare te lan la waaye waaye mbokk yi la ñuy bàyyi tasaare bi ñaaw dëkk boo xamee ni quatre-vingt-quinze pour cent musulman la ñu wax ma ne Sénégal gii nee nañ quatre-vingt-quinze pour cent musulman plus de soixante-cinq pour cent ñëpp ñu ne ay jeunes lañu plus de soixante-cinq pour cent ñëpp ñu ne ay jeunes lañu waaye bu bon boo demee di bi da ngay fekk ay 1 million 2 million nangam jëm fii waaye boo xoolee ñi wax faratay julli ci biir internet bi boo xoolee ay 2 ak 3 bi la ñuy am ci wetu boo xamee ne nañ dëkku jullit la kon yooyu yëpp ñu war a daw wax naa ne yoon ci bii wax na ne wax lu ñaaw ak tasaare lu ak seede lu ñaaw loolu ci bàkkaar yu ko boole ginnaaw nag bokkaale suñu wa taala ak liggéey ci ñaari waajur te ñaata jeune ñu tëdd seen biir néeg seen bàyyi yëgul seen ndey yëgul lañ leen doon tere moom la ñuy dugg nag ci biir néeg ñu koy def loolu dëngee ñaari waajur la te suñu borom subhanahu wa taala fi mu yëgoon ci ñoom da ko placé ci deuxième ci bàkkaar yi nga xam ne mooy bàkkaar yu mag yi kon ñun ndaw ñi dañ leen di déggal bàyyi yii di déggal ndey yii ndax nag fi njàng rek dañuy bëggal bu loolu day waxee jaaram fii bàyyi wax na jaaram fii waxtaan bi war fa jaar bi loolu nag tamit da ngay daal di am ci sa biir dund bari naa lu may wax ci jotaay bii bari na lu may wax ne bari na ndaw loo xamee ne bu defee bac du ko am bari na ndaw loo xamee ne su amee ay lijaas yu kawee bu wutee liggéey ba sonn du ko am bari na ndaw yoo xamee ne bunt bu ñu daal di fëgg bunt ba tëju lenn rek moo ko waral mooy dëggee ay wajur bu yaay waxee nga sànni la ko bu baay waxee nga sànni la ko bëgg say buti ci jéem dëgg-dëgg loolu mën ta nekk ndax ginnaaw jaamu yàlla bañ koo bokkaale kenn lañu yàlla toppaloo kooku moom mooy ñaari yu wajur kon bu waxee da ngay daal di dégg daal topp li feeg nag li mu wax moom la yàlla wax moom la euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di wax waaye bu waxee jëm góos nga wax jëm tubaab ba du fëgg bunti mu tijjee ko laaj mënu la dem donte que ne boo amoon liggéey bi gën a baax ci liggéey bi sa xaalis du am barke wala bu barke wala wax doo ko mën a jëriñoo kon nañu njëggal way jur yi ci bàkkaar yu mag la daal di bokk ba ñu bokkaale suñu borom subhanahu wa taala ba di fekkee bu ñaaw ba di seede bu ñaaw ndax ci ko loo xam ne suñu borom subhanahu wa taala daan koy gërëm te da ko leen fàtte ne وما يفعل قول إلا لديه رقيب عتيد suñ borom daf ñoo boole ñaari malaaka yoo xamee ni kenn ci ndeyjoor kenn ci càmmooñ ñooñu duñ fanaan ak yow bu ñu yendoo dañu daal di yóbbu la nga def ci bëccëg bi ñeneen ñëw fanaan ak yow ñooñu buñ fanaanee buñ xëyee daal di dem ñeneen ñëw noonu lay demee ba ilaa yow mi diini te ñu leen suñ borom subhanahu wa taala bi rëdd moom moo ko gën a xam tey àddina war nañu da ngay nekk ci sa biir direction donc ci biir tiim sa ordinateur sa agence sa agent yi nga am yëpp fu nekk xam nga ko place nekk xam nañ ko ki ñu defal contravention xam xam nga ko te yow génnoo biir bureau bi bu ñëwee andi la ay dossier da ngay jël rek classé waaye ñoom ñu def ci journée bi yëpp te mu normal daal di mu koy xam waxuma nag ak suñu borom euh, subhanahu wa malaaka yi bind nañ te ñoom ñu def nañu loolu bala koy jabaat dafay nekk loo xamee ne lu la waaye bu fekkee ne lu ñaaw bu ñëw nga tasaare doo wax dëgg ci wuñ nga nekk wallahi alazim suñu borom subhanahu wa taala ñun yóbbu ci yow ñu ñoo ko ñoo ñoo moom ñoo gën a xam ñooñu li ñu daal di andi te boo ko xoolee ci weeru borom boobu subhanahu wa taala ki ñoo ñëwoon ci ñun Fatima muy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nee na weeru koor su fekkee ne mënoo bàyyi wax lu ñaaw ak seeni lu ñaaw mu ne demal nga toog sa te daal di teg sa boisson nga lekk nga naan ndax yàlla soxlawul sa koor gi ma ne bu fekkee ne suñ borom nee na weeru koor yaa ngi woor te bàyyiwuloo wax lu ñaaw ak seeni lu ñaaw ak tasaare lu ñaaw jarul ngay woor imagine nag weeru koor ndax nekkul tool boo xam ne internet bii wallahi ñu ko moytuwul ci musiba rek la ñu daal di yóbbu daf ñuy yóbbu ba suñu xol yi daal di feebar te bu suñu xol yi feebaree pour ñu julli julli bu tranquille ak a jafe bëri na sama classe yi ak li ñu njëkk a def mooy taal nañ portable bi dugg nañ ci Facebook ak WhatsApp commencé xool ñen ñoo envoyé ñoom commencé nañ di yónnee ay message yenn saa yi nga gis ku sant Jaw toog fa di yónnee message ba ñu nodd ba julli ba pare ba nga ca portable wala su pare daal di teg daal di dem julli ji yaakaar ne suñu borom subhanahu wa taala amul ay bët yu ñu gisee na ngeen wàññi jëf ji amul benn njëriñ na ngeen ko wàññi bu baax te sax ci jaamu yàlla sax ci topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sax ci déggal nag suñuy wéyjur buñ ko def rek dañuy bokk ci ñi nga xam ne ni dañoo daal di perte mbokk yi jikkoy naafeq ak bari ci suñu biir waaye maa ngi koy fàttali sama bopp comme ni ma leen koy fàttalee te bari na jikko yoo xam ne dañ ko woyofal lool fekk ci jikkoy naafeq yi ci la daal di bokk wax naa léegi-léegi bu njëkk bi daal moo nañ ko mooy koo xam ne bu waxee rek du wax dëgg ak koo xamee ne bu joxee baat ñëw mu daal di koy fauché mas naa fi nettali yaakaar naa benn italien dafa ñëw fii fekk si ma fi mu daal di nekk ci hôtel Teranga mu woo ma ne ma dama dugg suba 10 heures ñu daal di tase ma ne ko incha allah mu ne ma heure man pour man kon am différence d'heure ma jàpp ne heure Sénégal ak heure Italie loolu suñu ko maanaam bu dee mu ne ba heure Sénégal moom bu ñu la waxee dix heures midi et demi dañuy ñëw ak une heure te mu mujj daal di ñu ruus xam ne loolu du jikkoy sénégalais te ma xool ñi ko entouré mu liggéey ak ñoom ñëpp kenn ku dul jullit am ci ñëpp ay jullit lañu kon loolu dafa nekk lu yéeme foo cher rendez-vous waxtu wu ci ñu dëkkee rek jàppale def ko ko ak ko dem naa fex la yàlla ñu yàlla def ko dégg ak jot yàlla yàlla sàmm ñu sàmm njaboot gi yàlla yàlla taxawu ñu ci zahir taxawu ñu ci baatin ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam